ku koy Samba Sagne bi mu duggee Gambie sénégalais dañu ñëw rescue de gambie bi nga xamante président Jammeh nee na du dem. te fekk Adama président Adama baro wii no paré ci embassy bi nekk wax na ko nekk embassy bi nekk. te Dakar fala waté waatee njëkk balaa moo ñëw Gambie ñu wax ñu déclaré ko as a president of the country da nga gis ne nag diggante cabinet rek sal bu cabinet bi di tàkk saal bi la jëm bu saal bi di ci cabinet bi la jëm lii nga xamante ne mooy MFDC nga xam ne rebelle Casamance attaque bii ñu def nii def ko ci nga xamante ne président Barrow dafa waat ba pare. te yow xam nga diggante Sénégal ak Gambia ak Guinée Bissau Conakry dañoo mel ni mburoog soow rebelle xajatuñ ci tund gi fu ñu mun a làqatoo ci seen mbokk. gi nga nag booy làq safara. bu motee daay sa kër lay njëkk taal. bu moo tax kenn war cee nangu tamit. ngay làq safara boo xamante ne bu motee daay taal sa kër. ndaxte ay saasaay kenn du ko abal almet. parce dafa muy kos. bu fu tàkkee bo motu yow di nga liita am fire ah, service toñalen ɓuur ah, gewel komi yaafa ñamen doron ah, an tol ɓe yaala ne komin ko gambia nin sénégal an tol leddanta bakilin fakilin na nin probléme o keta gambia gambianol ke bori sénégal la pour kate kuŋo dendende jeeyi mhm. an ɗo nin kuketa sénégal fanan iɓe borlala pour enanan gambia pour ke ɗiŋo ñin i kuŋo dendendin na mhm. min keta exemple oti doron quartier fayo min sotata nuŋ min keta quartier fayo ti between janden president adama barrow kaka president oti mm -hmm. ya jama be nun jangaje la komin ko a ku jama la keta no modol borta anu jama borta lay tata idun da senegal mhm. ah, so wanke jamaati sax na ñepp dañoo daw sa senegal lolu lolu sax mo waral ne comme hanga la gambia ak senegal it shows like we have a very strong bond hanga that cannot actually be destroyed just like that you know why hanga li dal dafa nekk lo xamantene comme hanga we should actually you know try to investigate a nga ñu xam ne like some of the steps si nga xamante ne dañ koo jël to ensure ne comme xam nga at least ba kenn doomi aadama dafa fort you know and it is very sad to realize da nga rek boo updatee gis nga lii lu yàgg la mm-hmm. lii dafa yàgg di am mm-hmm. dafa am loo xamante ne nañ ci dut baaraam mm-hmm. ñu def ci taxaw seetlu bu baax xam ne ñun tey jii piis rek lañ xam instabilité diggante ñaari réew yi peace and stability rek moo moo fa mën a am tey gi lu wokk Sénégal xur na Gambie lu wokk Gambie xur na senegal bi ko soo ñoo ñoo sëyante seen biir ñoo bokk sant ñoo bokk lu ñuy làkk ñoo bokk ni tey ji boo nee tey ji Maria euh, Queen sa tur boo ko ooyee bi Sénégal fukki sénégalais la lay uyu. man su ma yaay sénégalais la waaw nga oo turam. Uh-huh. non sa maataw. ok nga oo turam ne. ci mboq to uh, make that statement strong ne comme nga Sénégal ak Gambie xam nga ñoo bokk ndey baay gis rebellion xam nga in Casamance man there was a time xam nga dama daan dem gaamu Casamance understand nga. Mhm. suñ moto bi. Mhm. comme suñ jëlee xam nga yooni gannaaw bi. dañ dañ dee break xam suñ moto bi. Mhm. waaye those days xam nga luñ dee jël rek mooy xam dañ dee waacee suñ saaku maalo bi. wala duylin xam nga ñu waacee ko. wala comme xam nga driver bi daf dee jënda cigarette nii wala something else and then xam nga to dem. den xam nga ñu bàyyi ñu xam nga ñu romba.